jumaa ji fees na mu ne nañ ubbi armel yi defee ñëpp di ñëw di rob si fii bi mu uh, uh, joxee ndigal itam dafa waxoon ne buñ ko tabax bu fi kenn tabax ndax tabax yi day xatal armel yi nga xam ne lu njëkk lii liñ fi tabaxoon avant ñu koy ubbi officiellement uh, te waa kër Serigne Bassirou doon fi denc loolu rek lañ tabax mais à part au delà yooyu amatu amatul tabax léegi nag mu jël gestion bi yëpp teg ko ci loxol daayira Muxaddamatul Xidma mu koy saytu ñu constaté nag ci vendredi bi passé ak dimanche ay defkatu ñaawteef yoo xam ne dañuy tëb miir bi dugg ci biir di dagg lu mel ne arminium bi nga xam ne barabi kilifa yi comme duñ ko tabax dañ koy barrière des fois ak arminium léegi bopp arminium yooyu nag lañuy dagg ak yenn mbàjj yu cher yi nga xam ne dañ ko fi faral di di di lal yooyu nag lañ jël euh, buñ ko jëlee nag yàlla dogal gardien yi fi nekk euh, fexe ba identifier leen ñu jàpp leen jëbal leen gendarmerie mais kon du sulli mais vol la dañoo sàcc euh, bagage yi nga xam ne moo nekkoon ci kii bi muy barrière yooyu nga xam ne aluminium la dañ koy jaayi ak lu mel ne mbàjj yu cher yi nga xam ne moom la ñuy def ci barabu kilifa yi. bii nag euh, bëccëg lañ ko def bëccëg lañ ko def ndax euh, benn bi ajjuma vers 13h la bu dimanche bi itam vers 14h la bu ci nekk digg bëccëg la bon gardien yi ñoo ko jàpp. gardien yi ñoom ñoo jàpp ñaar ñi jëbbal leen gendarmerie euh, pour le moment comme comme fii zone gendarmerie la pour le moment ñoom ñu ngi ci loxol yi gendarmerie. fu waaw foofu laa bëgg a ñëw ci euh, euh, ñu gën a yokk sécurité bu baax ndax bi ñu ubbee armeel yi daayira bi dafa jokk ak maire bi commune bu Touba. ndax ku nekk xam na ne gestion ay cimetière commune moo ko war a yore kon ñoom dañoo jokk ak ñoom wax dëgg yàlla ñoom def nañ ay effort wut nañu benn bureau état civil foo xam ne fi la ñuy defee kayit yi dafa def nañ ko détaché fi ñaari gardien yoo xamante ni kenn ki moo fi yendu kenn ki moo fi fanaan waaye armeel yi un kilomètre carré kenn nit mënul assurer sécurité bi gis nga ki nekk ci bunt bi bëccëg gi li muy def mooy immobiliser oto gros porteurs yi véhicules yu transport yi ak lu mel ni moto yi nga xam ne mën nañ dugg ci biir yàq fa dara ñoom la ñuy euh, euh, téye ci bunt bi mais am na sécurité un kilomètre carré loolu kenn nit mënu ko kon foofu bëgg nañ ñu yokk euh, personnel bi nga xamante ni ñoo fi nekk sécurité moo xam ay ASP moo xam yeneen agent yoo xam ne dañ mën a assurer sécurité bi en même temps éclairage public bi matul ndax li fi nekk ay lampe yoo xam ne solaire la te ci bari doxul kon foofu itam ñi ngi bëgg commune bi gën a góorgóorlu yokk fi ay lamp yoo xam ne dana euh, defar éclairage public bi ba mu gën a tege ci yoon lampi courant yoo xam ne guddeeg bëccëg dana mën a tàkk wala bëccëg gi dana mën a guddi gi dana mën a leer ba fu waay toll ñu def ko tuñaawteef man fee sori ñu mën koo gis jàpp nag mooy ànd nag sagoom ndax waxut waxi ku seetluwuñ ci moom ku taqali ko sagoom ku jamono jàpp daal xam naa seetlu dañ ko ci moom koo xam ne xëy na am na jafe-jafe mu jàppoon ne loolu bu ko na caa euh, for dara lépp nekk waaye jàpp ma ne moom ku soxla mbàjjum sedd man mën war na ko mën a jëlee ci armeel daal ndax ñu bare bari sax xëy na ñemewuñ <laughs> mbàjj mu nekk ci armeel yi li ñu jàpp moom mooy ñoo xamante ni xëy na jamono di leen jàpp ñu bëgg ko def pour jaay ko def ko ay ay luubalkat lañ ñun moom loolu lañ jàpp mais nag loolu lépp nag enquête bi moo koy feeñal ñu ngi ci loxoy gendarmerie fi may wax ak yow ni ñoom euh, defeere nañ leen incha allah waaw non xam nga bàmmeel yi nga xam ne mooy am armée bi moom souvent bàmmeeli kilifa lay doon bàmmeeli kilifa yi bi ñu constaté 15 fukk ak juróom yoo xamante ni dagg nañ ko yenn yi sax dagguñ ko carrément ni dindi ko mais bopp yi ci kaw xam nga xam ne mooy nekk armignon bu luur bi moom la ñuy jël xëy na boobu la ñuy jaay euh, bàmmeel yi nga xam ne moom lañ ko def daal mooy yu kilifa yi waaye doonul ne yëpp sax yëpp ndax am na ci yoo xamante ni amu ko